maa ngi tudd Serigne Saliou Sène nekk fii rond point 6. waaw ñun sénégalais nga ñu fekk la fii ci sa place bi di jaay fii ci rond point 6 bi dañ da doon bëgg a laaj euh, bi nga déggee ni Pape Bouba Diop international sénégalais bi gaañu na lan la def ci yow jour boobu. non li mu def ci man jour boobu jour bu loolu lu métti la def sama ci man parce que pap Bouba Diop ku ko xam xam ni loolu rek la lay rappelé boo déggee ni Pape Bou Diop gaañu rek 2002 rek lay rappelé amul leneen lu mu lay rappelé ndax bégal nañ mag ndaw xale ñëpp la bégal kontaan nañ ci moom jour boobu ba nga xamante ni dañoo fecc dañoo woy président de la république génn ñëpp génn xam nga loolu ci nation boo xamante ni Sénégal la loolu lim def noonu yàlla mi nga xamante ni mooy koy fay yàlla na ko yàlla fay fa mu tëdd fa mu tëdd yàlla yàlla. Euh, jéggal ko ay bàkkaaram dese bi moom métti na trop trop trop trop waaw. Ah, Pape Alassane Dieng maa ngi dëkk euh, Kër Massar. Ah. waaw en tant dañ doon def euh, micro trottoir di laaj sénégalais seen témoignage ci décès Pape Bouba Diop par rapport à lu mu def Sénégal yëpp ak biñ ko déggee lan la def ci ñoom. waaw nekk na tiis bu rëy si ñun parce que ku xam Pape Bouba Diop ab melokaayam. dañ koy ñaanal yàlla yàlla xare ko ci àjjana yi gën a neex ci àjjana yi d'abord te xam naa ni ñun am nañ lu ñu metti lool lool lool lool sax parce que Pape Bouba Diop euh, gaynde la bu ñu naan gaynde dëgg gaynde la parce que lu mu mën mënta doon moom am na lu ñu defal ñun Sénégal mooy deux mille en deux mille ci coupe du monde bi but boobu kenn mënu ko fàtte ba yow ma yem keroog. kontaan nañu benn kontaan boo xam ne ni kenn xamul àppam fu mu féete keroog man mii sama bopp sax ginaar laa añee parce que ndax kontaan bu ma kontaanoon kon di ko ñaanal yàlla fu muy jëm yàlla na ko gënal fu mu jógee yàlla xare ko arjana àjjana yi gën a nekk si àddina yi te may ñaan gouvernement bi ñu defal ko lenn loo xam ne ni vraiment Pape mérité na ko ñu honoré ko sagal ko sagal ko presque mérité na ko parce que lu mu ñu defal ñun Sénégalais yi kenn mënu ko fay. franchement dire vraiment am nañu lu ñu metti lool lool lool lool sax mais yàlla nag bu soxlee kenn mënu si dara kon yàlla na ko yàlla yërëm rek te xaare ko arjana ko ay arjana génn na ci arjana yi. Boniface Diatta. sportif la quoi. sportif la damay moom du ma ne lu si moom bëri Pape Bou Diop sénégalais bépp sénégalais bu ko xamul dafa fekk seetaanu. Euh, comme ñi mel nii xam nga Sénégal dañuy faral di gaaw a fàtte pour yow lan lañ ko mën a defal ba nga xamante ni kenn ko gaaw a non war nañ ko mën a defal benn cérémonie boo xamante ni ñëpp koy def reconnaissant ndax par exemple Bokaane bi mu génnee àdduna am na benn cérémonie bu ñu ko defalee stade benn cérémonie bu am doole kon pourquoi pas Pape Bou Diop mi nga xamante ni na ñëpp. bégal askan bi bëggal ñëpp bégal tout un peuple nga xamante ni président de la république son excellence maître Abdoulaye Wade dafa génn ci télé télé bi wane joaam kon tey jii nii loolu lu normal la ñu defal ko benn mémorial bu rafet boo xamante ni ñëpp nañ ci gis seen bopp ndax boo gisee sax am na jour bu dugal Angleterre ba ba wane ba wane mooy mooy Pape boo Diop kon xam nga ne tey jii Pape Bou Diop représenté wul Sénégal rek mais tout un tout un monde monde bu monde bu yëpp lay représenté ndax ñu bëri xam nañ ko à travers ci li doon def mooy football ci euh, nga xamante ni def na ci wane na ci xarañ xarañceem lépp lépp loo xamante ni daal ak respect wane na ko ci ak dignité te ku ko ku ko xam-xam ni doomu sénégalais boo xam ne ku bëggoon ku bëggoon équipe nationale tamit kon pourquoi pas ñu defal ko benn mémoire boo xamante ni tey ji day rafet ci ci ci parcours am ba nga xamante ni mooy mooy mooy mbaax baax euh, ñu match Sénégal-France moom la ñuy jàpp parce que c'était le premier match du Sénégal en Coupe du Monde et c'était le premier but et c'était devant l'équipe championne du monde 98 2002 ñu ñëw tase ak moom euh, Coupe du Monde mu dugal but bi euh, mais à part loolu est-ce que am na ay hauts faits ay jaloorem yoo xamante ni yow en tant que jeune yoo xam ne da ngay suivre football jàpp nga euh, jaloorem yooyu. muy équipe nationale muy ci club bi mu daw ay ay ay Angleterre ak yooyu. loolu moom man maam ci équipe nationale laay mën a coupe du monde jusque ba muy dugal ba muy am na waaw ah, ba muy doublé noonu Henri Camara muy dugal euh, deux deuxième. waaw contre Uruguay ba muy dugal loolu boobu récemment après souvenir yooyu noonu moom ma revient subitement ma toog télé RS RS2 gars teg ko affaire yi ñëw ma xam ne man histoire. waaye nag kii nit ku rëy la woon nit ku mag la woon waaye ñàkk nit ku rëy waaw maa ngi tudd Moulay Seck. waaw li ma retenir ci moom mooy simple ni mu simple simple simple beneen bi tamit gisoon naa ci moom poñ xadar lion combattant ndax bu ñu xoolee contre Darma di xaaj googu mu xaajoon maanaam loolu tamit gisoon naa ko waaw da gis ne xam ne kii xeexkat la waaw ba ci biit France bi moom lay doon xeex la waaw euh, moom daal xam naa ne daal euh, xale yi def sport léegi rawatina football war nañu raw ci ray ci moom waaw gagneur la woon waaw gagneur la woon. yow nga am chance dëkk ak ay mbokkam Rufisque. lan la ay mbokkam doon wax ci moom. waaw yàgg naa dégg parce que su ma déggoon noonu ci su ma nekkoon di liggéey Rufisque dama amoon ay ma doon fréquenté ñoo xam ne ay parents la mais yàgg naa ko dégg ñu wax da xam ne ku ku ah, nangoon a def solidarité doon naa ko dégg parce que dama doon dégg ñuy wax ni doon na dimbali ay parents am doon na dimbali ay parents am doon na def loolu yàgg naa ko dégg. loolu moom parce que ñu tamit da ngay seede rek xam ne moom nga xam ko yàgg naa tëngeej ko jaay jamono yooyu noonu juste après coupe doon naa ko dégg si ñu koy témoin social wala ñu dimbali waa këram ñu dimbali ay soxla ñu dimbali ay ay yàgg naa ko dégg quoi ñu daal comme ni ma nee rek euh, image bu rafet lañ am si ko ni ñu rafet boobu yàlla na ko yàlla euh, na la ba nga ne jour boobu euh, ginnaaw nga añee mu nekk koo xamante ni ku discret la woon nga jëkki jékki rek dégg ni gaañu na jeune 42 ans c'est très jeune nga dégg ni gaañu na lan la def ci yow ban réflexion la la indi. waaw comme ni ma lay waxee rek. kenn du xëccee suñu borom suñu borom lu mu namm ci jàmm ji rek mooy am metti na lool à 42 ans mu décédé ak circonstances yu mu décédé mu nekkoon feebar bu metti si moom ba mu sentir ko ne ne lii métti na trop ci man par yàlla jëlee ko fa vraiment métti na métti na ba fu mu métti yem mais yàlla moom kenn du xëccoo moom jàmm yàlla moom bu soxle jàmm ji mënuñu ci dara comme nu ma la ko rek njëkk bi métti na ñëpp ñun ñu nekkoon suñu sago mu dundaat lu weesu lu mu lu mu dund. mais yàlla moom kenn mënu ko ci moom xanaa di ko ñaanal yàlla rek comme d'habitude rek yàlla xale ko ci àjjana yi gën a nekk ci àjjana yi incha allah bu soobee yàlla quoi voilà incha allah jërëjëf. est-ce que euh, comme li nga wax pour oyof la woon en tant que jeune sportif lan la lay inspiré oyofaayam boobu pour que mu inspiré yeneen sénégale yeneen booy yoo xam ne ñu ngi inspiré aspiré nekk footballeur simplicité boobu ku mel ni Sadio Mané yooyu ak seen simplicité lan leen xamee. lu ndaw laa si wax mooy moom caractère bu moom si terrain ak discipline surtout footballeur sportif si boppam da war a am benn respect am discipline bu nga xamante ne moom la war a am audace caractère bi muy génn nga xam ne maam nit jour boo duggee si terrain loo war a def ci biir terrain nga def ko ba mu mot sëkk si fulla ak fayda waaw yàlla nag lu dogal nga xam ne moom mais lan ngay xaar ci état bi mu defal parce que souvent fii da ngay def jaloore après boo génnee àdduna affaire bi day jeex nii kenn du xam après mu jeex noonu quoi loolu nag Sénégal lan nga ja lan ngay ñaan état pour mu defal ko loolu quoi au moins Pape Bouba. waaw moom mérité na nag hommage bu bu bu mag a mag a mag di ma maanaam mérité na hommage boo xam ni hommage la boo xam ni àdduna bi dinañ xam ni ah, li ma hommage bi ñu defal euh, Diego Maradona lu ko raw ab bu mérité mérité na ko ñu tuddee ko édifice boo xam ne bu mag la parce que gis naa ni amoon nañu fi nekkoon ñu mel ni Jean-François Bocandé si de moom tamit ko fi tuddee lu tax ñuy wax waaw wala buñ ko tuddee tamit xaj na promotion bi ñu ci war a def ci lu siw lu siw mais ñu Pape Diouf moom war naa nekk koo xam ne war nañ ko defal ko hommage boo xam ni ak na bépp xam ni defal nañ ko ma parce que loolu def ci sport loolu moom xam naa ne nag du ñàkk autorité yi dinañ du def lu jaale ay mbokkoom di jaale Sénégal nga xamante ni ñàkk nañ koo xamante ni tey jii nii om boo xamante ni tey jii nii la lu ku représenté woon Sénégal fépp. surtout bi mu demee de 2002 coupe du monde il a bien représenté le Sénégal te mérité na loo xamante ni tamit Sénégal nañ ko ko defal ndax biom boobu képp ku feebaroon wala nga nekk hôpital wala nga nekk euh, wala wala sa xool di doon métti nga de doon dund no stress jour boobu def na la mbégte moo xamante ni tey jii maare taal yi kontaan na ci moom trop trop trop trop trop waaw waaw maa ngi kontaan ci yéen nag di sant di leen gërëm seen teewaay fii ci rond point 6 waaw. jaale famille bi maa ngi jaale Sénégal Sénégal bi yëpp ñàkk nañ nit ku rëy ne ku suufeel boppam waaw man nu ma nekkoon xale sax ba ma toll nii sax xam naa ne Pape Diouf ku ëppoon waaw ñu ngi koy jaale Sénégal yëpp di ko jaale képp xam sportif rawatina fari football mais comme noo ko mën nañ ko jaale Sénégalais yëpp waaw di ko ñaanal yàlla yal na yàlla yàgg may yàggale ndawam aljanna yal na yàlla yokk njëggalam waaw vraiment di ko jaale waa Rufisque di ko jaale monde bi yëpp ak mën nañ ko jaale ñëpp parce que comme ni ma wax rek marqué na àdduna bi waaw kenn du ko fàtte waaw turam moom du raaf ci ci histoire bi